internationale. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal. li muy def mën a wéy lan mooy secret bi dara lu euh, teg ko ci yoon rek xam ne lii laa bëgg di ko def euh, ndax aar moom yàlla dafa def dañoo fekkoon. ci ay jamono géwél yi ñaar ñoo doon woy yàlla def nag may geer bu set bëcc ok kon Youssou Ndiol du géwél <laughs> man <laughs> mais xam nga comme euh, l'art n'a pas de frontière dama jàng musique ok par l'école nationale des arts des arts ok euh, loolu aussi ci ay la débuté comme dans mon village euh, ñooñu daal ñoo ñoo kii daal. ñoo fa oyof. fa oyof. fa oyof xel. waaw waaw da nga gis d'ailleurs bu neexo eh, waaw. tey tey mu ne am eh, eh, Youssou Ndiol si lu mu nekk actuellement ak it lan mooy projet actuellement nag maa ngi doon def benn album par an ci décembre bi lay génn. bii mooy sama troisième album. mais à part album bi defe na daaw. def naa quarante sept single benn at waaw quarante sept single yoo xam ne dama ko di liggéey di teg parce que man moom dama dama nit fu mu mën a ci li nga yëngatu nga koy def sans arrêt tey Youssou Ndiol lan mooy relation ak yeneen euh, wéykat yi d'abord wéykat yi nga xam ne yen a bokk askan kii immédiat bi askan séeréer bi ak moom aw ma frontière ak qui que ce soit cest à dama gëm ne nit ku nekk mënoo lekk lu dul sa wërsëg na aar bu nit nekk dama dama def ñëpp comme samay bopp bàyyi ku nekk aussi ak li ko yàlla wërsëgal te di ñaanal artiste yëpp ndax ñu ñoo bokk liggéey ñoo bokk yoon li nga xam la mooy ay projet d'avenir Youssou Ndiaye. Ah, waaw projet yi nag bëri parce que à part groupe ma yor nii yor naa beneen group à part euh, damay dem lan def laa na rek instant bi nii maa ngi installé waat beneen groupe folklore boo xamante ne ay lekkat kese ñoo koy dëgg. koora balaf ak ah, guitare séeréer donc euh, sonorité ah, culture séeréer gis nañ ne ambassadeur am nga macha allah euh, ana culture boobu tey noo ko gisee nekk noom ci Sénégal ak it nan lañ ko percevoir extérieur da nga dem extérieur c'est bi ñu aussi ndax euh, étranger yi bëgg sonorité séeréer euh, ñëpp ko boo gisee bu ñu joué l'étranger ni mu yëngalee tubaab bi nga xam ne ci dara la kenn mënu ko bañ sensation la rek euh, la musique est mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal merci vraiment kontaan na ci yéen yàlla dimbale aussi ci seen liggéey rajo bi télé bi bi di moins gën a avancé à travers tout le monde dem ci ba tolloog waa TFM ak ñeneen ak ñeneen macha allah jokka njël jokka njël merci